mel ne dafa am loo xam ne ci àdduna bi du fi gan mooy bépp réew boo xam ne feeñ na fa walla yaakaar nañ fa mu am alal ju fa génn rawatina mu jëm ci wàllu pétrole gaz ak yu ni mel ñépp xam nañ ni yëngu-yëngu dafay am ngir ci àdduna bi dafa am ñoo xam ne loola la ñu soxla te nag la daloon réew ya ko njëkk a am ña ko def te la ñu soxla woon démb ci réew yooyu ñu soxlaal ñu ko li wér wóor mooy maanaam xëy na pexe bu dëppoo ak lu mën a am ci senegal la ñuy wër waaye nañu jàpp ne maanaam seen bët mi ngi tege ci ñu loola nag dafa ñu may ñu mën a jàngat lépp loo xam ne ci jamono yi yëpp mu ngi fi feeñ ba tax na dafay jaadu rek ñu woote loo xam ne dana jëm ci ñi nga xam ne du ñàkk ñu ni dañoo bëgg a wengal gaal gi waaye boo xoolee jëf ji la mu gën a nuru du wengal gaal gi waaye wengal géej gi te loola nag gëm naa ni kenn du ca mucc loolu mooy li ci jiitu mu mel ne ñi ngi dëgmal élection yu war a am ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet élection yooyu nag baax na ñu fàttali ne ay weer ca ginnaaw bëri woon na ñu wax ne maanaam président de la république daf leen a bëgg a dàq ba ginnaaw élection présidentielle yu 2024 bi ñu génnee locales yi mu annoncé ni élection yi. te waxtu mu waroon a am lay amee kon mu mel ne bëri na ñu mu bett ndax leer nañu ne su dogalul woon ñu def leen ci waxtu wañ ko waaje woon kon tey jii maanaam xeexu ñu bëri day jëm ci respecté wuñu le calendrier républicain bi nga xamante nag décidé dañ koy def ci dat bi nga xam ne yoon loolu la santaane mu mel ne nag pexe yu bëri dugg na boo ko jàngatee danga naan dafa xëy na ñoo xam ne bugguñu dem ci élection yi ci boppam euh, réew nag dafa am lu ko lal mooy euh, réew dafay am yoon maanaam du ku nekk yaay fajal sa bopp te du ku man sa morom duma kon loola moo tax ñuy wax muy am justice ndax tey su fekkee ne ñun ñëpp am nañu code électoral boo xam ne dañoo daje ci dialogue national waxtaane point yu bëri ba ci ñaar fukki point ak juróom-ñaar yañ doon waxtaane ñu déggoo ci ñaar fukki ak juróom ah ñu dem ba am cot électoral boo xam ne bi ñuy waajal dem déposer ji liste ñépp xam nañ ko amul kenn ku mën a taxaw wax la ni xawma ni list bu amul parité ah maanaam dafa dafa jalgati yoon kenn mënu laa wax ne xamul ne list bu matul tamit maanaam dafa jalgati yoon loolu leer na kon su fekkee ne jóg nañu ñun ñëpp ñu ànd déposé ndoo ay liste ah, fa ñu ko déposé di direction général des élections benn moment ñu am lu ñu saytu ba am lu ñu ca wax ñëpp jóg dem ci conseil constitutionnel mi nga xam ne wàllu woowu mooy àtte ñu dem ci conseil constitutionnel mu dogal jox la dëgg mu jox la dëgg nga bég ci wéyal ñu demaat ministre de l'intérieur am dogal bu mu jël ca wàll woowa ca la mu jàpp ne moom moo ko war a def nga wëlbatikuwaat jël décision boobu yóbbu ko ca yoon woowa muy bu conseil constitutionnel maanaam yow jàpp nga ni kon ah, bu ñu nekkee ci réew démocratie di fa dox la nga xam ne moom moo ci ëpp solo mooy bu ñu bëggee lijjanti dara nañ ko lijjanti ci yoon ñu dem ca yoon yoon dogal cette fois si mu am loo xam ne yow neexu la ah nga ni doo déglu yoon xam nga loolu su amee day nekk problème doon nañ mën a dégg nit ku taxaw ne ministre de réew wax na reconnaître ma bañ a dem saisir le conseil constitutionnel à partir de ce moment ñu ni kii dafa nekk ci benn logique mais mënuloo jóg tey boo saisiree conseil constitutionnel mu jox la dëkk nga bëgg nga saisiraat ko joxu a dëgg nga ne conseil constitutionnel bi ci moom daa war a démissionner loola bu amee euh, dafay wane ni kon maanaam réew mi nga xam ne dafa opté pour di dox ci yoon ak réew mi nga xam ne dafa opté di dox ci démocratie yow loolu da nga koo bëgg a tekki ñëpp xam nañu ne fii ci Sénégal sénégalais ñoo choisir fi ñu jëm ñu jëme fa ci jàmm fi ñu jëm ñu fay jëme ci démocratie ah, ku mel ne man ak ñeneen daanañ fi nekk ci biir opposition bi jamonoy président Abdoulaye Wade ñu jóg taxawal IDEWA initiative pour le départ de Wade mais askan wi dafa ni il n'en est pas question askan wi dafa jóg daal fii réew mi mënuñu fi fal nit ñu di ko folli ci leneen lu dul élection képp koo xamante ni da nga d'accordul ak moom opposé wul nga wax sa xalaat da nga xaar ba jamonoy élection yu ko concerné jot nga doog a ñëw loolu ñun ñëpp jàngar nañ ko fi ñu jóg daal di toogaat suñu toogaay bu njëkk continuer di doxal parce que sénégalais yi ci boppam bu ñu waree taxaw nag pour wan la ni fii mooy limite bi dañ la koy wan. loolu defe naa ni ñëpp xam nañu loolu kon tey ji euh, je pense que lépp loo xam ne jëm na ci ay woote yu jëm ci toj yu jëm ci yàq yu jëm ci gaañ yu jëm ci jëm ci këru jàmbur yu jëm ci laal yëfu jàmbur loolu lépp ñëpp xam nañ ni dëppoowul ak yoonu Sénégal waaye dëppoowul aussi ak li nga xam ne moom la sénégal yi ci boppam tànn mu nekk seeni yoon muy modèle boo xamante ni modèle u démocratie la boo xam ne ñëpp dañ koy jël doon ko rafetlu fii ci biir ci biir ci biir euh, Afrique. alors ñu dem nag ba benn jamono ñëpp xam nañu ne am na manifestation bu am euh, nit ñu autorisé ci benn jamono. ay nit wéeru ca manifestation boobu woote loo xam ne dëppoowul ak jàmm loolu ñëpp gis nañ xam nga soo jógee def loolu woote ne su ñuy defaat manifestation na ngeen dem si kër jàmbur ngeen dugg fa parce que di ngeen fa fekk nangam loola soo jógee woote waat manifestation xam nañ ñu du manifestation parce que loolu aussi mooy réalité euh, fii ci biir Sénégal dafa am solo ñu fàttali ñëpp ne même bu jafe. te jafe na nag effectivement bu ñu waxee ne tey am na ay jafe-jafe ci wàllu dund bi kenn mënul taxaw wax ne jafe-jafe amul waaye dañuy wax ne maanaam nguuru Sénégal euh, li mu ci def ci wàllu ndàmpaay su ko ci deful woon fan la ñuy tollu tey nga xam ne muy ci wàllu courant bi di wàllu énergie yépp muy jëm ci wàllu euh, lépp lu jëm ci ay mbirum euh, euh, boulangerie yi nga xam ne mburu yañ fay defar ak yëpp ñooñu lañu leen indil ci ak woyefal woyefal yooyu yëpp wëlbatiku droit de douane yoo xamante ni ay nit yi nga xam dañ fiy indi lu ñuy jariñoo ngir mën a defar lu sénégalais yi soxla état bi ci boppam la mu leen waroon a teg te bu leen ko tegee day teguwaat teguwaat ba tegu ca njëg bay dem ca nit ka état bi ci boppam dem lu ci bëri mu renoncé ci loolu. Hmm. tey kenn koo xam ne yaa ngi bëgg a exploité loolu li nga waroon a def du yem ci wax ne jafe na da ngaa war a wax bu ñu defee nangam mu gën. mais déggu leen kenn ku taxaw ni lii moom la ñu waroon a def actuellement parce que nit boo tegee dara dangay teg dara mais doo dégg kenn ci wàll woowu jóg fii ne la ah, ah, dañu waroon teggi nangam ñëpp xam nañu ne. subvention yi nga xam ne état bi jël na leen ñëpp dégg nañ FMI ñëpp dégg nañu institution financière yi ne ci réew mi di wax ne état bi waru ko def may ñu ko mu def ko boobaak léegi nii président de la république c'est en tout souveraineté kë la jël mesure yooyu ngir am yërmande ci doomu aadama yi mais kenn ku ci nekk tey jii bu ñu waxantee dëkk dinañu xam ne jafe na waaye lu mu jafe-jafe dafa am aussi boo bëggee saafara mbir ay matukaay yoo xam ne moom ngay jël pour mën ko saafara léegi nag ah, ñëpp dégg nañu ci fan yi ah ñu yëkkati fi kàddu wax ne ah, Union européenne dafa sàkku ci président de la République ñu dàq élection yi waaye xam nañu ne loolu nekkul waaye ñan ñoo lawal loolu ñi lawal loolu mooy ñi bëggul a dem élection tey jii Sénégal fi mu toll mooy nam ko daan defee ci yeneen yi jiitu saa yu jubee ci élection lu mu tartar lu mu jafe-jafe nit ñi lu ñuy mujjee lu ñu mën a waxtaan dañ ko waxtaane ba mu dox yaakaar naa ni 2012 bi ñuy jëm ci élection yi ñëpp xam ne ñi Sénégal jaxasoo woon na tàngoon na lool mais nit ñi def nañu élection yoo xam ne bokk na ci yi gën ci yi mas a am ci biir Sénégal parce que loolu loolu mooy Sénégal c'est-à-dire ñoom dañoo xam ne jàmm gën fii te jàmm gën fa nu jëm kon moo waral Benno Bokk Yaakaar di wax ne euh, am na ci biir Sénégal ñoo xam ne bëgg nañ jàmm am na ci biir Sénégal ñoo xam ne bëgg nañu ñu sàmm république muy li ñu bokk lii nu bokk nag euh, bu fekkee dañ koy sàmm te koy sàmm ci jàmm euh, nit mën naa nekk ci parti d'opposition nit mën naa nekk ci société civile nit mën naa nekk sax bañ a nekk sax ci benn mouvement te ni bëgg naa Sénégal continuer dox tey doxee ci jàmm mais bëgg naa aussi ñu am loo xam dañ koy respecté mooy souveraineté wu Sénégal bëgg naa mooy Sénégal nga xam ne lu ñu fiy def dogal bi fii lay génn ñi nga xam ne bëgg nañu que bu fekkee ne état dafa lalu ci justice bu fekkee ne justice dafa daje dogal dara tey jii boo jógee ne naa daaneel loolu boo ko daaneel lu fay des pour bañ loolu nag moo waral woote boobu Benno ko Yaakaar woote di wax nag ni euh, fii lu jëm na leer na état bi fas na yéene parce que loolu la sénégalais yi di xaar ci moom mooy bien sûr respecté liberté nit ñi waaye jël ay matukaay pour que kenn du jóg ne day sàkku liberté boppam ba xañ yeneen sénégalais yi seen liberté parce que loolu aussi jaaduwul euh, c'est vrai jamono yi ñu génn ñu bëri wax nañ fi wàllu ay concert de casserole ak yu concert de casserole fii ci Sénégal ñu ñii ñoo ko njëkk mais il est ñu leeral leen ci ban contexte la boobu dañoo nekk université mu nekk 1988 mu am état d'urgence ak couvre-feu ci jamono boo xam ne kenn amuloon accès ci médias yi booba Sud Hebdo moo fi nekk Sud nga xam ne hebdomadaire la walf mensuel la woon politicien daf doon génn à l'improviste mooy mën na toog ba mu yàgg mu génn mën na toog lu yàgg du génn télé amu fi woon rajo amu fi woon bu dul bu état bi euh, yeneen journaux amu fi woon waxaale wu ma nag téléphone ak internet loolu amu fi woon donc su fekkee ne donc jóg nañu ne suspendre nañu l'ensemble des libertés individuelles et collectives ba pare def couvre fa jamono boobu seul moyen bu ñu amoon te ay étudiants la ñu woon c'était justement ñu def concert de casserole pour ñu yëg ne am la ñu naqari surtout que jamono boobu pratiquement tous les leaders de l'opposition tëjoon nañ voilà ce qui s'était passé à l'époque à l'époque daanañu jóg di def manifestation à l'université comme ni ko nit ñi tàmmee daan bloqué euh, euh, avenue Cheikh ante Diop boobu route de Ouakam la tuddoon mais bi ñu demee ba jëmmi jamono gis ne bu ñu ko masaa di def nit ñi nga xam ne dañ daan ami soxla bëgg a dem ci lijjanti yooya du ñu mën a dem ñu toog ba mu yàgg te ñooñu mën na am ñun la ñu faral te du ñu comprendre puisque amuñu woon ci médias yi pour leeral leen ñun nañu taxaw ci ñaari côté tali nga xam du ñu empêché kenn mu dem mais dañ daan taxaw ci ñaari booru tali bi nga xam ne ñëpp dañuy romb gis ne am nañ luñ ñu naqari du ñu gaañ du ñu yàq duñu ñu toj du def leen loolu aussi réalité la pour wax ne. dañ doon adap adapté wu ci modèle bi nga xam ne suñu jur yi ak ñi ñu bokkal Sénégal daanañ ko wax am nga droit wax ne lii neexuma li nga amul droit kay mooy nit ki nga xam ne mi ngi dugg ci oto xëy na peut-être am na ku feebar xëy na peut-être am na lu muy wuti loo xam ne mën na ci jox waa këram ñu dund yow nga ne ko doo jaar ci mbedd mi nga xam ne fa nga koy amee ji parce que simplement man am naa lu ma naqari loola nag mooy li lal ñuy wax ne euh, ñooñu nga xam ne ñoo gisee noonu ci biir Sénégal dafa jaadu ñu waxtaan seet naka la ñuy fexe benn ba élection yi am ci date bi mu war a am état bi wàllam dina ko def mais dafa baax ñi nga xam ne c'est des acteurs politiques ou des acteurs de la société civile ou mu doon ñenn ñoo xamee ci biir Sénégal mën nañ fi am kàddu mën nañ fi am baat ñooñe ci boppam ñu sàkkoo ci ñoom euh, doxalin ak kàddu yoo xamante ni day gën a dalal Sénégal te day permettre foofu ñu jëm ñu àgg fa ak jàmm li ci des nag mooy état bi Euh, li wérte wóor mooy euh, je pense que ni ko président wax woon ci ci benn waxtaanam euh, maanaam élection yi moom dana am am du am mi ngi suñu kanam mais loolu kenn warul ñaan élection yi bañ a am maintenant appel bu ci ciy mujjee mi ngi lalu ci lépp loo xam ne ñun ñëpp xam nañ ne léegi ñi waroon a prononcé wu yëpp ci wàllu yoon wax nañ loolu moom c'est fini jeex léegi jëm së maanaam sëgg bëree moo des te bu ñu sañoon nag ñëpp ñi nga xam ne concerné na leen kenn ku ci nekk nangoo sëgg bëri ci anam bi mu gën a rafet euh, mbirum liste bi ñu wax titulaire ak suppléant là également suñu exemple la puisque en 2014 man j'étais euh, le président du comité départemental de pilotage de la campagne à Thiès benn ci suñu kuréel yi nekk Fandène am problème bii exactement problème mu parité ci liste titulaire bennoo ci boppam booba attaqué ñu bi ñu demee ba cour de d'appel cour d'appelu Dakar cour d'appelu Dakar euh, euh, daaneel liste bi yépp ñu dem cour suprême cour suprême tàqale liste titulaire bi ak liste suppléant yi wane ni suñu liste suppléant yi mën na compétir au nom de And Defar Thiès et c'est ce qui s'est passé à Fandène mais compétir ni voilà loolu ça s'est passé ici au Sénégal loolu ñun ñi ñoo ko dund man maa jiite woon kuréel bi nga xam ne moom la mbir mi laaloon tey su fekkee ne man dama jiite benn coalition waroon nekk tête de liste mais ñëpp xam nañ ni direction de direction générale des élections man en 2017 am naa ñoom contentieux boo xam ne sama photo bi waroon nekk ci liste bi nekku ci bañ ma si bañ ñu signaloo nañ ko bëggee dama bañ liste bi demee noonu ci élection yi loolu dund naa ko tamit yàlla moo dogal loolu alors tey bu fekkee yow da ngaa bokk ci coalition yow sa tur demul tur ki toppoon ci yow deñul waaye liste bi ci boppam dana mën a dem ci élection te amul benn sénégalais tey ginnaaw local yi ñu jóge bu man a wax xàmmeewuma liste bi xaw ma ni liste bi am na mais je pense que li gën a yenu maanaa def naa manifestation ma jàpp ne réussir na puisque def naa la ma bëggoon def wax naa la ma bëggoon a wax mais su may woote waat manifestation dafay doon une manifestation démocratique le 31 juillet dans les urnes mooy képp koo xam ne faral nga ma bis boobu jugal nga jël sa bulletin parce que sa bulletin dina fa nekk te nit ñi daañu ko xàmmee photo nekk ci bañ cee nekk ñëpp xàmmee nañ bulletin bi léegi ñi ko bëgg a votel bis boobu ñu def leur manifestation démocratique en allant prendre le bulletin dugal leen ko yow soo ëpplee après du yaa yore gouvernement bi nga ëppale assemblée nationale yore gouvernement bi boobaa booba kan moo lay tere ci manifestation alors moi je pense que su fekkee ne dañuy wuti yoon pour vraiment instaurer waat jàmm ni ñu mën a toogaat waxtaan ni ñu mën a préserver l' essentiel mooy li ñu bokk euh, il y a la le faire lii daal laa bëggoon na euh, Euh, waxandi ci ak tënk euh, nekk à disposition pour bu fekkee ne am na ay laaj yoo xam ne voilà euh, bëgg ko Serigne Kala euh, pour faram fàcce bi leer na léegi nag nous allons prendre trois questions une série de questions waaw ñu bëgg a laaj jox leen kàddu euh, léegi euh, ñu poser seen question suñ ci jógee on va apporter des des clarifications donc dañuy jël une série de questions on va en prendre cinq pour commencer. non à eh, la sénégalaise. à la sénégalaise. Alors, je suis Pépou Sagnan du journal d'investigation Kewoulo. Kewoulo TV. J'ai à peu près trois questions. La première, en 2011, Sénégal peut se face à une crise électorale. Onze ans après, la même situation pratiquement se produit, se Pratiquement, on la troisième candidature du président Macky et par parle que le Sénégal refuse de signer le protocole d'accord de la CEDEAO limitant le, euh, le nombre de candidatures. Aujourd'hui, quelle est la position de la coalition Benno Bokk déclaration dont nous avons appris est-ce que le Sénégal pour la non-limitation de la candidature pour les élections présidentielles la deuxième question est que le président de la République par ailleurs président de l'Union africaine est parti demander l'ouverture du marché de l'Ukraine pour la, euh, comment ça la dotation des pays africains en alimentation, si on peut dire cela. Aujourd'hui, on constate depuis un certain temps que le marché intra-africain reste bloqué entre le Sénégal et le Mali, malgré la demande du peuple malien et du peuple sénégalais. Qu'est-ce qui bloque toujours, selon vous, par rapport à, à l'ouverture du marché malien La quatrième la troisième question, si vous me le permettez Allez. On a entendu la réaction de l'un de vos camarades disant nous avons la justice avec nous, nous avons la police, la sécurité avec nous, nous avons l'autorité avec nous. C'est avec le parti Benoît Yakar ou bien ça doit être avec le peuple sénégalais. C'est trois questions pour le moment. Pour vous, merci beaucoup. Vous pouvez résumer le non, non. non déjà rek simplement pour bu wax beneen kii. ñett yi lan la c'est les trois questions. les trois questions la du mandat. avec le protocole de la CEDEAO que le Sénégal n'a pas euh, signé. Deuxième La deuxième question, le marché ukrainien, on demande l'ouverture du marché ukrainien. Au même le marché entre le Sénégal et le Mali reste fermé. Et la troisième, c'est par rapport à la déclaration des employés révisée. Nous avons la sécurité, la justice et l'autorité à venir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui. Bonjour, Fadil Gage, journaliste à Puisqu'il y a encore quelques personnes économiques et sociales qui entrent le sommeil des Sénégalais et ajouter une crise politique qui risque de le pays dans un chaos total, alors l'AFP et Benno Bokk Yaakaar en général, elle ne um retrouve pas plus de grandeur et de maturité en l'opposition autour d'une table pour trouver un consensus. La deuxième question, la Ligue des imams des prédicateurs du Sénégal ainsi plusieurs prêches de ce vendredi sont favorables à un report des élections. Qu'en pensez-vous? Report des élections, c'est ça la question. Vous voulez répondre déjà à On en a quatre là. Oui, allez-y. Merci Ibrahim En fait, j'avais deux, deux, deux questions. La première question est que tout à l'heure, j'ai entendu le maire a minimisé le casserole que le leader de Yévasqué, le baron Solanjoko, avait appelé. Et on que euh, euh, dans presque tous les quartiers du partie des, des, une partie des Sénégalais pour euh, euh, manifester leur mécontentement. Est-ce que euh, que par rapport à cette conseil de casserole que vous minimisez, pensez-vous un signal par rapport au régime de, de, de, La deuxième question, pensez-vous pas que la coalition Benno Bokara est, euh, est, est, sur une défensive Parce que souvent, on, on, on voit que si euh, la coalition est sort pour faire de presse, le soir, lendemain, on voit euh, la coalition Benno Bokara faire une conférence de presse. Vous, en tant que pouvoir, pensez-vous pas que vous êtes la défensive Étant donné que vous pensez que la Constitution a déjà décidé, pensez-vous pas qu'il est nécessaire de préparer les élections, Vous êtes à quel organe Monsieur, vous êtes à quel organe Activité. Activité. C'est bon, le micro. C'est bon, allez. Allez-y. Nom et organe. Non, média et média et cinquième. d'accord ñu gën a ñu kàddu chef de l'opposition bi jëm mu doon yu jaaxal askan bi parce que nee nañu dañuy def seen manifestation jusqu'à ce que départ bu Macky Sall am ci réew ma gis ne à l'heure actuelle ci situation réew mi wala dañu ne ñoom ils n'ont pas besoin de de

Ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas d'idée, mais ils ont une obsession de mandat. <laughs> Donc on va écouter euh, les camarades sur la loi et l'ordre également, sur cette préoccupation, sur le report des élections, euh, et notamment sur les casseroles. Vous ne traitez pas de ah, dafa am solo solo ma ni dafa am solo ñu bàyyi xel na ñi ngi jëm ci ay élections législatives le 31 décembre euh, le 31 juillet fii ak élection yi da ngeen jàpp ne beneen sujet bu concerné beneen élection du mën a nekk à l'ordre loolu moom moo leer euh, et je pense que quand même sur ce plan là le président a été très clair depuis longtemps on ne peut pas enjamber des élections pour wax ci beneen avant les locales ça a été notre position locales yi jàll na ñu am les législatives du 31 juillet euh, fii ak élection yooyu mënuñu wax lu lu jëm ci élection loolu moom il faut que ça soit clair lu ci des lu jot yomb euh, bi ci des euh, wàllu je pense que wàllu concert de casserole du dama leen minimiser parce que kenn ku nekk mooy jox valeur li mu jàkkaarloo ndax citoyen sénégalais bu nekk bu dara xewee yaa koy jàngat nga seet fu mu toll ci yow kon kenn amul sañ-sañ minimiser euh, initiative bu nit mais li ma doon def mooy rappeler euh, histoire bi wax ci wàllu Sénégal fu mu cosaan conseil de casserole njëkkewul ci Sénégal ñëpp xam nañu Algérie dafa doon am ñëpp xam nañ ni Chili dafa doon am ñëpp xam nañ daana am yeneen réew bu fa daan am maanaam njëkkewul Sénégal mais fii ci biir Sénégal ñun ñoo ko fi njëkk def te wax naa leen ban contexte lañ ko defee defe naa ni ci foofu laa yem ci wax li ci des mooy euh, je pense que ak lu manti xew bu nit ñi opté pour des stratégies pacifiques d'expression sax à yi limite nit ñi mënuñu lu saluer puisque loolu dëppoo na ak li nga xam ne moom la sénégalais yi bëgg maintenant nag on est dans un contexte boo xam ne culture yi bokkul ngëm-ngëm yi bokkul te am na ñoo xam ne nanguwuñu ñoom ku tëgg ci seen wet wala romb leen ci jamono nawet par exemple ak yeneen ak yeneen donc loola kenn ku ci nekk yow yaa koy apprécier comme du suñu initiative te dugguñu ci nekkuñu ci lañ ci doon wax mooy loolu bi ci des. Euh, je crois que li am solo ci wàllu élection yi mooy li ñu leen wax bi ñuy ubbi wax nañ leen ne pour souveraineté wu Sénégal pour la respiration de la démocratie les élections dañu war di am ci jamono bi nga xam ne moom la ko yoon santaane ma wax leen fi ne am na ñu bari dañu daan wax avant les locales ne président de la république Macky Sall fasul yéene organiser élection yi ci date bi mu war a amee donc ko attaqué te loolu ak sécurité te ñëpp gis nañu bi local yi jeexee dafa fixé élection yi ne 31 juillet 2022 leer boobaak léegi ci position boobu la état bi nekk lépp loo xamante ni jaar na fi te mu am ay jafe-jafe ñëpp gis nañu ne acteurs yi mu concerné yëpp dañoo dem ci yoon bu fekkoon ne acteurs yi dañ ne reconnaître ñu yoon. nga mën a wax mais ñëpp a dem ci yoon boo demee nag fan ba xam ne doone benn ñu àtte li jaadu mooy nga nangu loolu mooy li fi ne maanaam tey jii bii cour suprême génne li mu génne démb nga xam boobu rek moo fi desandi woon ci lu ñuy xaar nañu leer ne bu jàmm rek dee xew fas nañu yéene incha allah dem ci élection li ci des maintenant euh, yoon yoonu Sénégal la état état wu sénégalais yi état wu sénégalais yi dafa am devoir benn veiller ci bu élection waree am mu jël matukaay yi ci war am pour élection ya am boo xoolee bu ñu jëmee ci année électorale ci wàllu budget assemblée nationale daf koy waajal sóoraale ko loolu état la war waaye su fekkee dañoo jëm ci élection mu am ay jafe-jafe wala mu am ay menaces yu ay nit def jëmale ko ci exercice bu citoyen bi am ci droit boobu keneen jóg parce que nee na am na lu ko neexul lu ko neexul loo xam ne njuumte ba ca moom la jóge nga jóg ne kenn du fi def élection bu boobaa dafa am loo xam ne bu ko état deful kon nag ñun ñëpp ñu war a posé wu question bu ëllëgee bu keneen jógee bitim réew bëgg daal ci suñu kaw wala bëgg ñoo imposer agenda boppam bu boobaa est-ce que état bi dina nekk en mesure de defend défendre ou pas hmm. je crois que le 17 juin au-delà de lu manti xew euh, je pense que sénégalais yu bëri am nañu dalub xel ci ne am nañu état am nañu dalub xel ci ne am nañu ay forces de dépense et de sécurité yoo xam ne sans force excessive mën nañu jóg jël ay matukaay ba euh, sàmm leen d'autant plus que ñëpp dégg nañu loo xam ne comme wàllu yoon a koy lijjanti ñi ngi daaxirul ñu ñëpp di ko topp ay nit yu jël ay matukaay yoo xamante ni wax nañu ne ñi ngi naroon a def yu doy waar yu bokkul ak organiser une manifestation pacifique mais comme nee naa mbir moom dafa dugg ci wàllu yoon lu du xase dugg ci wàllu yoon dañ koy bàyyeek wàllu yoon mais au moins état bi sàmm nañu ca loola ba li ñu dégg ne moom la ay nit doon waaj te buñ ko defoon ñëpp loru si ah loola dal na xelu Sénégalais yi parce que nag loolu la ñuy xaar ci état li ñuy xaar ci état bi au delà de ay affaire politique parce que nag dafa am lu fi nekk loo xam ne moom la ñu nawee Sénégal mooy am état je pense que euh, ñi ñi fi jot a jaar avant président Macky Sall kenn ku ci nekk apporté na pierre am ci édifice su tabax ab état ba tax li ñu wër ci sous région bi ñëpp gis nañ ni mu demee ñëpp gis nañu li yàgg xew Guinée saw te naroon fa xew yàggul. ñëpp gis nañu na mu doon demee ca Gàmbi ñëpp gis nañu li xew Mali ñëpp gis nañu la xew ca Burkina Faso mm-hmm. ak loo xam doon na xew ci yeneen i réew kon su ñu tegee booba ba léegi ñun mësuñu cee bokk c'est que amuñu ay coow c'est pas que amuñu ay jafe-jafe c'est pas que amuñu ay nit yu am divergence yu parfois yegg ba taat mais dafa fekk dañoo am ñoo xam ne ñoom la leen yoon sant la leen réew mi sant la leen état sant ñoom ca loola la ñu te ñëpp xam nañu ni saa ñu masee toll ci cëppandaw boo xam ne nit dem na élection ñu gañe ko démocratiquement yaakaar naa ni kooko du mas taxaw sax di am xalaat naan fiy toog kon loolu su amee ñun ñëpp ko war a rafet jeune ne voudrais pas euh, dugg ci commenter ay euh, déclaration ou tel ou tel politique même bu bokkee suñu cas man li je pense que tey jii le porte-parole du Sénégal président de la République la ci wàllu yooyu te la mu waroon a wax ba mu ko waree wax wax na ko leneen luy nit di wax luy jëm ci sens boobu lay doon ci institution yi nekk ci biir Sénégal benn bu ci nekk am na xam na luy wàllam euh, te mu ngi koy def lii feeñ ak li feeñ en tout man de bokk naa ci ñi nga xam ne seen xel dal na waaye bokk naa tamit ci ñi nga xam ne euh, bëri nañu ne ci biir ay parti d'opposition ñenn ñi maak ñoom am nañu jaar-jaar damay wax ak ñoom am na ci ñoo xam ne yàlla moo dogal sans prétention aucune man maa leen formé am na ñenn ñoo xam ne jamono yañ daan toog fii ci biir Sénégal di jóg di def académie ci yenn wàll yi booba ñenn ñu ci bari ñu ngi woon petit quartier ci école waaye ñuy ànd ak ñun mais ñëpp xam nañ ñi cee jamono yooyu defe naa liñ ma fi ci kaso néew na kuñ ko fi tëj te kenn mësuma dégg ma wax sama benn collaborateur manifester pour ñu libéral mosul am kenn mënu laa génneel benn demande de liberté provisoire bu ma mas a def dama mas a estimer ne que citoyen la su ma yaakaaree ne war naa wax nangam ma wax ko euh, ñi yore yoon jàpp ne loolu waruma ko wax ñu woo ma damay wax samay collaborateur ne tant que violé wuñu euh, les dispositions du code de procédure pénale ak du code pénal il n'y a pas matière à manifester euh, da ngeen di toog di seetaan ba ñu àgg ca yoon bu ñu àggee ca yoon ku ci nekk layoo ñu xool ndax kan moo am dëgg noonu laa mas a doxale je pense que su fekkee ne nekk nañ ci posture boobu di nga mën a défendre li nga bëgg di nga mën a wax li nga bëgg di nga war a féete ci fi nga far mais sans benn yoon nga def loo xam ne comme ni ma ko waxoon tout à l'heure waxuma la wengal gaal bi waaye géej gi ci boppam lay wen loolu nag la ñu war a moytu